Tambacounda Bobo ak nigéeni si mënaguñ fi taxawal ben club de ville ba tax fi mu nekk nii seetlu nañu lu jëm ci wàllu béréb yi nga xam ne itam dañ fay yëngu ci yaram na li nga dafa rawatina ci département bu Bakel bu kudiri ak bu Koupantoum. tey Tamba dafa soxla ay doomam pour changement bi te ci changement boobu la dox ñun mo waral li yëpp am tey li may ñaan waa Tamba mooy nañu joxante loxo ñu xol intérêt Tamba bu ñu xool suñu intérêt nañu xol intérêt Tamba té lolu mo am importance waa Koussanar kal biram Kalbiram Koucakoto Dawadi fepp fu khalifi euh, ci nek tew nañu bu lolu weesoo tamit wa Tamba yep tew nañu tay ñun ñoy doomu Tamba en tout cas man ma ngi talal loxo wa Tamba yep mairie bi lañu bëgg pour mën a liggéeyal pour Tamba ci kaw loolu rek la la ñu nekk. ci fàttali ci joŋante ca Pandaw loolu muy final bi ASC Plateau moo jël raw gàddu gi ndaxte moo dóor abattoir ci benn poñ ci dara.